alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala asrafil anbiyaai wal mursaliin sayyidina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciin allahumma axrijna min zulumaatil wahmi wa akrimna bi nuuril fahmi waftax alayna bi maxrifati lcilmi waxasin axlaaqana bilxilmi wasaxil lana abwaaba fadlika wansur alayna xazaa'ina raxmatika yaa arxama arraximin yaa rabbal caalamiin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 ñaan ko mu nangul ñu sunu koor ñaan ko mu nangul ñu sunu jaamu yépp te defal ñu njéggalu bàkkaar ñoo ngi nuyu soppe Al Misbah yi nekk ci biir réew mi di nuyu soppe Al Misbah yi nekk bitim réew di beral ab nuyoo jàngkati alxuraan yi nuyu itam jàngalekati alxuraan yi nuyu ilimaan yi ak sëriñ si ndokkeelaat jullit yépp ci weeru tedd wi ñu nekk ñaan borom bi mu nangul ñu ñaan ko mu defal ñu njéggalu bàkkaar waaye ñaan ko mu yombalal ñu ñoo ngi leen di béggee bu baax di békki ni ngeen di ànd ak ñun jotaay bi saa su nekk di ñaan borom bi mu yokk jàmm ci réew mi def ko ci réew yi ñu wër yal nañu ko yàlla boole defal jàmm lu mat a am solo la lu baax la te am solo waaye lu mat a bàyyi xel la te di ko ñaan waaye di ci dox ba noppi di ko yéeneente ku bëgg a am jàmm nanga jàmmal nit ñi bu ko defee nga am jàmm ku bëgg a mucc itam wala nga bëgg sutura na nga suturaal nit ñi bu ko defee borom bi subhaanahu wa taala suturaal la yàlla nañu ko boole defal euh, kàttanal bu baax a baax suñu njiiti diine ak suñu njiiti àdduna waaye xiir suñu njiiti àdduna ci ñu ñuy wommat jëmale ñu foo xam ne moo gën ci suñu doxalin yal na yàlla defal leen ko te defal ñu ko masaw bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoo am mbokk yu tawat wala ñu am mbokk yu génn àdduna te réew mi moom euh, maa ngi wax démb ci sëñ Maodo ne ko day toll foo xam ne nit ki day xalaat ba mu yàgg mu ne est-ce que sax dund fi wóor na ndax dañoo am jafe-jafe ak suñu wàllum paj dañoo am jafe ak moom jafe ak moom bu ma ne woon jafe-jafe ak suñuy pajkat danga naan kon ñun ci suñ biir la rek ndax loolu moom ñun ñëpp la bu dee jafe-jafe ci mbirum doomu aadama moom secteur boo dem rek am na fa ñu jàmbaare lool di def seen liggéey ni mu ware am na ci ñoo xam ne yaafu suñ waaye defuñu seen liggéey ni mu ware maanaam nañuy taxaweek nañuy traité loolu jéggi na dayoo lool ba saa su nekk rek benn soble bu nëb boobu wala ñaar day tax ñu yóbbaale saako bépp dem tuuri ca mbalit ma ndax yàqu ya ca am loolu nag ki koy waxtaanee te bàyyiwut ci xel loolu mën naa nuru ak tooñ ña ca des waaye ñu xam ne buñ koy wax itam léeg ñi nga xamante ne taxawuñ ñu war a taxawee moo ko waral loolu léeg-léeg mu doon ci jëmmi nit ñi waaye léeg mu doon itam ci eh, taxawaay bi ci boppam. nga xam ne tey boo demoon ci hôpital ba mu am ay jafe-jafe am na jafe-jafe yoo xam ne du ki la war a faj la waaye ni hôpital bi di doxe moo bindoo noonu ki ñëw ba lañ koo xool ne ko demal dagg ticket ba noppi léeg mu ñëw war a am rendez-vous rendez-vous ya sori lool ba du ko mën a am léeg mu ñëw ci ak yi ba nga xam ne fa lañ waroon a gën a dalaleem xelam ndax xamut wala feebar da koo jàpp ba mu jaxasoo ñu jànni ko ba mujj du xamati fu muy teg tànkam te loolu am na fi ba tax na sax nit ñi nit ñi duñ sawar ci dem hôpital maanaam xëy dem hôpital moom léeg-léeg day dem ba toll foo xam ne day mel ne xëy dem police xëy dem hôpital day mel ne ku xëy dem police te wuti woo fa aw këyit waaye dañ la yóbbu ndax police sax léeg-léeg nga fay wuti këyit woo xam ne doo taayeel ci dem fa te ñaar yooyu waruñu woon a yem ci nit ki nam fay demee moo tax doo gis ci ñun néew na lu nit di xëy yóbbu boppam hôpital maanaam xëy suba rek sangu solo ñu ne foo jëm mu ne sama yaram daa neexut damay dem hôpital léeg-léeg day am ñu baree bari balañ faa dem dañ leen di yóbbu maanaam pexe mu ne danañ ko def waaye foofaay mujj te moo waroon a njëkk nga xam ne balaa nit a fajootee dara day dem ñu xool ko ba mu xam ne lii moo ko dal mu tàmbalee faju waaye faj mi ñu xaw a sori ak itam ñàkk jàppandi ci ñun ni mu jàppandee moo tax léeg nit ki day jéemal boppam ba ay feebaram yokku mu dem ca barab ba feebaram gën faa yokku ndax boo moytuwut xaar ba muy xaar rek léeg-léeg mën naa ñëw xaar ba toqi maanaam huit heures fekk ko fa ba onze heures te boo moytuwut ki ko war a faj sax ñëwagut moom léegi loolu doonu ci jëmmi nit ñi waaye ci système baag na muy doxee nañ ko mooñe moo indi loolu xom ba xam manque de personnel lay doon doo xam ba xam ñàkk am volonté gu état am ci suñu politique gu santé la doo xam lan moo ko waral yooyu nag mant naa bàyyi xel mën naa bàyyi xel ndax ku feebar moom day jaaxle te ku faatu itam say mbokku jaaxle moo tax version bi nga xam ne moom lañ jotoon a dégg ci xew-xew bale xew Louga di masawu soxna sa ak i mbokkam lu mat a bàyyi xel la ci barab yépp lu mat a bàyyi xel la ci barab yépp léeg-léeg e, nit ñëw ca hôpital ba di faju si te ka nga fa fekk moom mën naa am xam-xamam àggut ci war laa faj rawatina boo demee ci région yi da ngay dem hôpital boo xam ne e, ka xereñe loola man koo taxawee moo xam mu tudd ab médecin wala mu tudd kay faj fajum jigéen te xereñ ca ñoom docteur Anna duñ fa bari duñ fa bari léegi ka ngay fekk nag mën naa doon infirmier wala mu doon euh, ab sage-femme moom lim mënoon rek mooy dalal la defal la yu njëkk yi xaar na ka nga xam ne moo man yëf ya mu ñëw ka ca war a àgg ca njobaxtal la Euh, soriwaay googu nag ak ñàkk personnel bu doy boobu ak ñooña ñàkk faa bari léeg mën naa indi ay jafe-jafe yu baree bari yoo xam ne mooy dox ci diggante bi ala kulli xaal ñi ngi masawu ñi nga xam ne léeg-léeg ñu dem ci hôpital yi génn te duñ kontaan waaye di masawu it ña nekk ci biir hôpital ba di liggéey te doon ñoo xam ne buñ sañoon ku fa ñëw sa aajo faju am na ñoo xam ne ñooy làmbu ci seen poste di daggal médecin di daggal malade yi ay ticket am ñoo xam ne ñooy faj nit ba noppi may ko paas. am ñoo xam ne ñu góor góorlu ci accueil ya loolu am na ci waaye nag am na ca wet ga koo xamante ne moom boo ñëwee bala laa xool day mel ne dalaa jéppi xam nga war maa faj ba noppi jéppi maa jéppee jéppee jéppi ba yow mel ne ku ma bëggut a gis te yow sa yéene mooy bëggu sama xel dal maanaam yow li war a jiitu ci li ngay def mooy war a fexe ba sama xel dal war maa yéene sama dund gi wan ma ne bëgg nga ma wan ma ne it bëgg nga ma wér waaw waaye këmax këmax këmax toogal déglul àndul yow euh, wax dëgg yàlla dañ laa fajloo waaye diggante boobu nag nga yar ma xaju fi am na koo xam ne diggante bi ngeen di jëflantee nga bëgg koo yar euh, corriger ko ci ay ayibam xaju fi yow li la war ci diggante boobu mooy dëgg-dëgg nag doon koo xamante ne yaay nga ak donte ki ñëw di la faju si mën na laa jur wala donte sax mën na la bàyyi waaye nga xam ne jaaxlee ko indi ci yow beneen bi ci des nag bu fekkee ay jullit lañ tey waxtaane réewum jullit amaan na beneen yëg-yëg bu ci nit di am moo yëg ni li may def nii ak jaamu yàlla da cee nekk ak jaamu yàlla da cee nekk boo demee ci réew yi nga xam ne ñoom sax euh, waxuñu ne ñoom ay jullit lañ waaye ci ak ci ak rek wàll woowu dañ koo fonk lool ndax di def effort ngir nit ki wér waaw def effort ngir nit ki wér te tey jii jàngoon aaye yàlla wax ci loolu jàng xadis yi ci yàlla yi ci yonent bi sa alayhi wasallam wax wax li ci ak nite wax kenn ku nekk bëgg loolu nekk ci yow ba jeex tàkk waaye bu ñëwee ci jëf ji nag ci pratique bi rek mu tàmbulee indi ay jafe-jafe ala kulli xaal loolu mat naa bàyyi xel lool moo xam ci barab yépp la ndax léeg nga ñëw jafe-jafe yi ngay am tàmbulee ca dugg ga maanaam ca kañ teg ca bunt ba mu koy garde nit dina ñëw rek moom ci boppam euh, laaj ko fa mu jëm ak yëkkatil ko weñ nga mu jàll rek dana ko ca woon pouvoir yi mu am yépp waaw pouvoir yi mu am yépp yépp yépp yépp dana profitoo wone ko foofa nga xamante ne lu mu man ci bundu xataal rek dana ko def ngir nga yëg ne moom am na sañ-sañu téye la matu ko matu ko loolu loolu loolu mënoon na koo bañ a jare noonu ci ak nite ki dugg ci hôpital mën naa jaaxle ndax ñun suñu réew nit ñu baree bari mën nañoo bañ liir wala sax mënoon na koo man sax waaye mu jaxasoo du xam ci donc ci gan la war a jëm kooku ak yi bokk na ci ñi ko ci war a dimbali waaye bu fekkee moom talu la boo ñëwee di ko wax du la déglu ñëpp a àndandoo yàkkamti ñëpp a ànd ñàkk yitte ci seeni moroom léeg-léeg jubbanti foofa itam lu lu jafe lay doon lu jafe-jafe lay doon am koo xam ne sax bi mu ñëwee di faju bañ defal koy analyse am ba noppi war ko koo wax na muy fajoo ji ka koy wax moom fasul yéenee làkk-làkk wam dégg fasul yéenee làkk-làkk wam dégg maanaam bu fekkonte ne daa déggut làkk wi nga dégg sax war nañoo xool ci hôpital bi koo xam ne euh, jekku na loola man ku ko koo mu wax ko ba mu xam ko rawatina nag bu fekkee boo waxoon làkk wi ëpp ci li réew mi làkk mu xam ko waaye da ngay ŋàbbu kayit wa fas ko ko yéenee làkki français léeg mu woo ab sëtam boo xam ne day jàng école ñi ne ko déglu li muy wax boo demee nga wax ko sa maam ni mu koy jëlee mu naan ko non il faut nga prendre benn par matin benn bu soir léegi nekk ci yooyu ba ba mu jeex xale ba moom la ngay làkk sax mën naa am déggu ko waaye waaw lay wax am ci yu baree bari du ko xam nga ñëw rey nit ki ci maali foro te léeg-léeg dalal geek waxtaan week yi ci aju yépp daa bokk ci li nga xam ne dana dimbali nit ki ba loolu am solo te euh, maanaam kiy faj ci ñu war a gën a jege askan wi la bokk ci ñi war a gën a jege askan wi la bokk yal na yàlla jàppale ñu waaye jàppale itam ñi nga xamante ne ñoo ci war a taxaw ndax itam loolu dafa am loo xam ne politique buy bàyyikoo ca kaw la buy bàyyikoo ca kaw la tàmbalee ci président waaye ñëw ci ministre ba ba ñëw ba ca euh, directeur wu hôpital ba ak ñi nga xam ne ñooy saytu lépp euh, ci góor góorlu ba am paj bokk ci li nga xamante ne danañ ci am wóolu ko ci suñum réew danañ ko wóolu suñum réew ba nga xam ne nit ki du jàpp ne bala maa war a faju rek damaa war a fay lu baree bari kon day mel ni dund fi wóoratut dund fi wóoratut ndax ñu bari ci ñun boo toogoon weer woo liggéeyut sa yëpp yëg ko nga amee jafe-jafe am nga looy dunde waaye amoo loo denc am nga looy dunde nag bu ko defee kooku mooy ki nga xam ne sax moom lañ jàppee borom teraanga waaye moom dëgg-dëgg soxlaam yaa ngi faju waaye dencut dara nga xam ne feeg mi ngi mën a xëy di dem ak ñëw borom bi mën na koo suturaal ba du amee jafe-jafe waaye bu xëyoon xëyut rek jafe-jafe am ndax dencut mu ñëw nag ñu ne ko nangam ngay fay nangam ngay dugal fii nangam ngay def fii nangam ngay def fii léegi jafe-jafe daal di tàmbulee am nag bu méttee méttee métti boo xam ne day mujj yàgg wóolu sam paj day des wóolu say fajkat day des loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax ginnaaw bi ñu noppee ci tomb bi ñu doon waxtaanee te muy tomb bi nga xam ne mooy ak dal waxoon naa démb ne dana ñëw waxtaanee li nga xam ne mooy asukuru te mooy sant sant. baat la boo xam ne ci luxa dañ koy jële rek ci baatu shakara wala yashkuru nga xam ne shiin lay doon kaaf ak raa li muy tegtale mooy kañ gu nit ki di kañ euh, feeñal njekk ci loo xamante ne jot na ci moom jot na ci moom moom la boroom xam-xam yi jàngale euh, waxin woowu di wax ne baatu cant gi ni ko lislaam di dégge mooy axiqata shukri arrida bil yasiiri mooy cant cant ci loo xamante ni rek bëgg ci loo xam ne jàpp ne na ci yow li li nga xam ne jot nga ci nga bëgg nga nga xam ne mooy xam ak rafetal waaye tasaare lu rafet li sant itam ci xéewal yi nga xam ne jot na ci moom boo ñëwee ci jubluwaayu baat bi buñ koy wax te mooy baatu sant gi ak yi nga xam ne moo ci aju mooy sant lépp loo xamante ne nit ki jot na ci ci ay xéewal lépp loo xam ne nit ki jot na ci ci loo xamante ne njekk la ci moom mu sant borom bi subxanahu wa taala mi nga xam ne moo ko ci jotale waaye sant ka nga xam ne moom la ko jaarale ci moom ba mu jot ci moom lañuy wax ne mooy feeñal mbëgte feeñal ak cant mooy am yëg-yëg rafetal ak kañ ci woywu rafet waaw ak kañ ci woywu rafet ashukru euh, almunaawi yu day wax ne sukuraani ñaari cant la nee cant moom ñaari xeet la mu ne ba ca njëkk mooy sukurun bil lisaani waxuwa huwa ashanaau ala al munximi nee na mooy cant gi nga xam ne aw làmmiñ ña koy def ñu ne ko mooy ban mu ne mooy kañ lu baax jëf ah wax dëgg yàlla dey sant naa la bu baax ah lii de moom la maanaam nga xam ne baat yooyu boo ko boo ko waxee ku la dégg xam ne kii day delloo njukkal li ko nit ki defal ku la dégg ngay wax xam ne kii day delloo njukkal ci njekk njekk ngi ko nit ki defal waaw ku la defal njekk nag yayoo na nga sant ko su ma ñëwee ci xadis ya danañ ko fa fekk bu ñaareel bi nee na mooy shukurun bi jamiil jawaarixi mooy sant nag ci say cër sant ci say cër te mooy xéewal yi la yàlla defal ndax xéewal yooyu mu la defal moo jiitu xéewal yi la ñépp defal defal la ak dégg defal la gis defal la defal lam xel waaye may lay tànk may la ay loxo euh, defal la yim la defal yépp yooyu nag sant ko ci mooy nga jëf ci li nga bëgg li bëgg nga jëf ko ci mm, loolu nag yëg-yëg la boo xam ne shukru bi xalbihi wa lisaanihi wa jawaarihi i'tiqaadan wa i'tiraafan yooyu yépp day daje bu boobaa nit ki day doon koo xam ne day sant waaye sant ci ab xolam lay doon sant ci ab xolam lay doon sant ci aw làmmiñam lay doon waaye sant ci ay cëram lay doon sant ci ay cëram lay doon yooyu lay boole moo tax imaam ibnul xayim di wax ne ashukuru suhuuru afari nixmatillahi ala lisaani abdihi nee na ak cant mooy feeñal jeexitali xéewal yi nga xam ne moom la yàlla defal jaam bi ci aw làmmiñam ci kañ bàkk ak wone waaye fas ko ci xolam mu jural ko ak cofeel waaye jëfe ko ci ay cëram ki topp boroomam subhaanahu wa taala noonu la ñuy sante ñetti xaaj yooyu bu njëkk bi mooy làmmiñ wi tudd ko tuddin wa gën a rafet ci kañ jëf ji xol bi big lool nga xam ne ki la ko defal da ko ëmbal cofeel nit ki du la dimbali ba noppi nga bañ ko wala nga een ko wala ngay lëñbët léegi lim ma jox fu mu ko jëlee say cër itam doon cër yoo xam ne danga koy teg ci eh, déggal borom bi subhaanahu wa taala baat bi nga xam ne mooy baatu sant ak sukuru aw tur la ci tur yàlla yi aw tur la ci turi yàlla yi ndax borom bi subhaanahu wa taala mooy ashakur ashakur mu bokk ci turam yi nga xam ne huwa yu yujaasi bi yasiiri taaati kasiira darajaati moom lay jëfandikoo ci fay waaye moom lay jëfandikoo ci jàppandilal nit ki ak topp waaye yëkkati ko ca dara yi gën a kawe nga xam ne jëfam yi nga xam ne moom la jëf ci ay fan yu néew jëfam yi nga xam ne moom la jëf te jamono ji mu ko jëf guddut borom bi subxanahu wa taala fay ko ci yiw bare bare bare woo xam ne da koy ful woo xam ne da koy ful maanaam doomu aadama la muy dundee na su fekkonte ne lim doota def ci kontam rek la du fa yendu benn bis compte bi jeex du fa yendu benn bis compte bi jeex. waaye borom bi nag da koy fulal moom li mu bëgg rek mooy nga góorgóorlu ba def fa dara rek na nga góor góorgóorlu ba ubbi nga compte gannaaw bi nga seedee ne yàlla moo yàlla moo yónni yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam sa compte bi yaa tudd yaa ubbi ci banque bu tudd al islaam ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga koy jaarale ci yoon wi mu tëral ngir ñu man di la fa dencal waaw ngir ñu man di la fa dencal léegi nga góor góorlu nag di ko jaarale ci njàngaleem yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu la nga fa def lépp danga ko fa fekk waaye ba nga ko fa fekkee ba noppi nag ndax nit a ngi denc dara mu jëm déwén wala mu ne ci réew ma di denc dara ñëw fi vacances lim jot indi avant vacances yi di jeex xaalisam jeex ba muy leb léeg mu am léeg nit ñëw fi vacances xaalisam du jeex waaye léeg-léeg nit dem ci barab dafa am lum réserver rek war faa fay hôtel fay fa euh, transport def fa nangam def fa nangam yow mal xiyaam bu fa demee ba dugg aljanna ak jàmm yàlla nañ fa dugg. man ngaa wax ne bu fa nit yendoo ba ngoon buñ ko génnee loon facture neexaayu aljanna ndox manam neexe soow manam neexe ak meew ma sàngara sanam neexe yooyu nam neexe rek boo muy tuut jëfam ji jeex waaye borom bi nag mooy ashakur waaw moom lim la santoon nga góorlu ba def ci delloo njukkal gim lay delloo njukkal mooy dala koy fay mu doon aw yiw ba noppi mu fulal la ko waaw dala koy fay ba noppi mu fulal la ko ne la nag shakara tilkal xasana waaw moo tax euh, cant bokk ci turam ya waaye di jëm ci anamuk dolli di jëm ci anamuk dolli dolli ñi nga xam ne dañuy góor góorlu ci jëf lu baax bu ñëwee ca moom mu dolli leen ak fay euh, waaye guddal ko ba nga xam ne du am fu mu yem ndax xéewali aljanna noon la toll xéewali aljanna noonu la toll amut fu muy yem amut fu muy yem waaw kulu washrabu hanian bima aslaftum fil ayaami al xaaliya loolu la wax borom bi nee na lekk leen naan leen bànneexu leen bànneexu leen waay waay ndokkule waay lii nag yéenam ko am borom bi subhaanahu wa defal leen ko ci fan yoo xamante ne fan la yu dul jeex mukk fan la yu dul jeex mukk àjjana noonu la toll àjjana noonu la toll moo tax kërug sant la kërug sant la waaw koo bëgg ci moom ba di ko teral da koy teral teraanga ja nga toll kenn ku ne ni mu toll noonu lay terale nit am na koo xam ne moom teddut na ma baal mënta teral kenn moom fay defante safaan ba la gën a man ci defal nit ki njekk hmm. moom la gën a man it ci taxaw njekk ndax loolu yombut ñëpp am koo xam ne nag moom li ko yomb mooy taxawu nag dëgg dëgg taxawu ak na nga xam ne noonu la ko noon la waree moo tax borom bi subxanahu boole loolu ci jikkoom ya boole loolu ci jikkoom ya moo tax baatu asana te eh, baat bi nga xam ne tey buñ ko dox mooy kañ kañ euh, baax na delloo njukkal baax na ndax xeet la ci xeeti cant yi bu fekkee tiituru euh, lëlu ko bu fekkee jayaate lëlu ko moo tax borom bi subhaanahu wa taala bëggewu ko noonu ñi muus dëgg sax dañuy bëgg ki leen di sant rek cant gi yam moo tax alquran akum njàngaleem ak njàngaleem yonente bi alayhi wasalaam ci ak nite mu ne ki la defal njekk lu toll noonu nga wax ko jazaakallahu xayra fay nga ko ak jëf ji lu mën a rëy rëy rëy fay nga ko mhm. ñun nag ñoo naan li ma ko defal yépp waaye moom amul ci man soxla waaw nga xam ne boo muy tuut sax li tax nga mere waa ji sax mooy ba nga ko dimbalee ba léegi woowaatu la téléphone maanaam moom daal da caa jot rek woo la waaye woowaatu la dëgg la na la sant nag yow it bul bu raay sa dox gi rek wax ne maa ko yayoo loolu ak mbaadoo la loolu ak mbaadoola la dinaa ci ñëw ci wàllu sant bu ñëmee ba ca biir biir ci détails yi nga xam ne moo fa am borom bi subhaanahu wa taala sant na lool bëgg na lool ci ñi nga xam ne dañ koy tudd bëgg na lool ñi nga xam ne dañ koy fàttaliku te loolu mooy mooy cant mooy yëg-yëg bi nga xam ne moom lañuy am ci moom wazakirina allaha kachiran wazakiraati waaw borom bi nee na ñooñu waajal naa leen aljanna ba muy tagg Eh, yonent ba it yonent yàlla daa daawuda ak ku mën a doon ci ñoom dafa waxoon ne ni'mal abd ni'mal abd innahu awwaab kooku ab cantaakon la waaw kuy tuub la kuy dellu ci borom subhaanahu wa te loolu mooy ak cant li nga xam ne borom bi dawal na ko ci yow ci ak may nga teg ci sa bët gis ko waaw gis ko boo féete woo di raay nag ak xaar li nga xam ne moom ngay yellool te jàpp ne joxu la ko ngir nga sante ko noonu day jafe moo tax asakuru min sifaatillah daa bokk ci melokaani borom bi waaye bokk ci turam yu màgg yi moo tax maanaa mi ibnu manzur day wax ne annahu yadku inda inda indahu alqalil min acmaali libaadi fa yudaacifu lahum aljazaa wa shukuruhu li ibaadihi nee na borom bi subhaanahu wa day sellalal jaam bi ay jëfam te fekk muy jëf ju néew waaye mu fulal ko ko fay ko ca ba noppi njukkal ko ca defal ko njëggal defal ko xéewal ci jaam ñi waaye fay ko fay goo xam ne fay gu sax la nga xam ne fay gi moo ëpp jëf ji moo tax moom ci boppam mooy ab cant moom mu tudde boppam ashakuru nga xam ne bu ci abalee nit mooy nit koo xam ne nit ku am yëg-yëg lay doon ci liñ la defal doo ko xeeb doo ko xeeb maanaam doo xeeb njekk doo xeeb njekk mag ñi daan nañ ko yare nit daan nañ ko yare nit ne ko ne ko ne ko as du xeeb luñ ko defal as gor du xeeb njekk mm-hmm. du xeeb njekk moo tax ashakuuru min ibadillah fa huwa alladi yajtahidu fi shukri rabbihi bi taatihi wa adaihi ma wasafa alayhi min ibadihi ki nga xam ne moom mooy ab cantaakoon ci jaam ñi nga xam ne cantaakoon ci baatu olof mooy aji cant ji ki nga xam ne moom sant lay liggéeyee maa ngi nuyu baax a baax suñ saaliwu sàmb di nuyu baax a baax waa cant gi yépp waaw waaye baat bi mooy ki nga xamante ne dafa sax di sant dafa sax di sant ashakuru ci jaami yàlla yi mooy ki nga xam ne day farlu di def yitte ci sant boroomam ci sant boroomam waaye di ko di ko def ci topp ko waaye di ko def itam ci eh, teg tànkam ci li nga xam ne moom la yàlla digle waaw ci li nga xam ne moom la yàlla digle waaye sant yàlla ci jaamam yi sant yàlla ci boole gim la boole ci ñoom waaye sant yàlla ci jariñal ko jaamam ñi kooko nga koy sant <laughs> kooko nga koy sant xanaa xamoo ne boo bëggee yàlla bég dëgg-dëgg fexeel ba bégalal ko jaamam ñi da cee bokk maanaam bi nga jubook moom nga fexe ba taxawu nit fexe ba taxawu nit waaw fexe ba taxawu nit loolu da caa bokk moo tax mu bokk ci turam rafet yi subhaanahu wa taala ndax ku rafeti tuur la mooy walillahi l asmaahul xusna loolu la wax yàlla nee na am naa tur yu rafet woo leen ma ci daa bokk ci turam yooyu ashakuru te mooy day nangu lu tuuti ci ay jëf bu fekkee jëf ja tuuti na te sell yàlla da koy nangu waaye da koy baril da cay fay ka nga xam ne moo ko jëfoon fay goo xam ne fay gu rëy la yal ñu boole fay yal nañu boole nangul na ñu boole ci ñi nga xam ne danañ bàyyi xel borom bi subhaanahu wa taala bàyyi xel itam ñi nga xam ne yàlla bëgg nañu bàyyi leen xel tàmbale ko ci suñ bopp ak ñi nga xam ne ñoom lañ séqal ñëpp ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax te di leen ndokkeel di leen baalu àq ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu baal ñaan ko mu defal ñu kendalu jàmm jaajëfal bu baax alxaaji imaam oustaz Alioune Sall moom la ñuy bàyyee toogu bi mu ñëw ñun ci waxtaanu fajar yu am solo yi ñu ànd ñun ñëpp déglu ko kamaa la nihaaya li kamaalika wa adada kamaali seen mbokk Mbàkke Sylla ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di almisbaax asalaamualeykum wa taala